ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ما رأيت ربي بسهر رمضان سيدنا توبا فمو تكون ويركو اك نمكو فانكوون اك نمكو جاتوون اجبول نتكي di gëstu lu bari di ko dor ndax man nañu ni euh, nit mom dañuy sukkandiku ci waxam ak jëfam te lu ëpp ci xasida yi sëriñ tuubaa yi boo ko yëree da nga ci gis nu mu jàppe weeru koor ak fu mu ko teg ak nu mu ko fonke woon am na benn xasida boo xam ni mi ngi ko yowma thulathai fi awaili ramadan njëlbeenu xasida googi mi ngi ciy wax ne yuusilu lil ajra bila misaani man junduhu basharahum misaani mi ngi ciy wax ni sunu borom eh, mi nga xam ni ay soldaaram dañuy bég ci sama mbind daf may andil ab yool ci ludul mu di ko màndaxe mooy weeru koor dafay weeru muñ sunu borom li mu wax ci kuy muñ mooy ak payam du doon lu ñuy nattale mbaa ñu di ko peese innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaabin moom dëggal gu mu dëggal muñ googi ci weeru koor ak jafandu gum ci jafandu dem na ba won ne moom la yàlla doon digee jëmmal na ko ci moom muy yuusilu lil ajra bila misaani muy yàlla dana ma andil sama yool ci weeru koor ci lu dul mu di ko nattale moom shahru ramadan weeru mbégte la woon ci moom di doon ci moom it weeru xéewal mu doon lu ñu war a jàng ndax am na ci nit ñi ñoo xam ni koor moom ab nattu ci ñoom ba ci bu ñu koy séentu ci séentu bu jëkk bi dañuy am xememteef mu bañ a feeñ ci séentu bu jëkk bi loolu lépp nag ci gan guy ñëw nga waroon koo yàkkawli ko waroon ko woon kanam gu leer mu mel ni bu agsee ci kanam guy ñëkk ci la lay fekk lolu war nañu bàyyi xel ni du jikkoo ju ñu war a ànd ak weeru koor ñu jànge ci sëriñ tuba ni nga xam ni moom weeru koor mbégte la woon ci moom weeru koor weeru xéewal la woon ci moom mi ngi taalif benn xasida di ko gàttandoo weeru koor xasida bi mi ngi tàmbalee ci yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi yow ngeen ji gan gan gi nga xam ne andil na ma mbégte ak xéewal ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi gan ko ko masaan am boo ne ahlan te mooy yellale naa la ak dugg wa sahlan jàpp ndalal naa la ak jàpp ndal wa tarxiban yaatal naa la ak yaatal benn boo ci waxoon gan rek dana doy sëkk ni yàkkaw li nga ko yaatal nga ko te bu dugg see xelam dana dal moom mu boole ñett yépp muy ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi nag dolli ci ni yooyu yépp nag amutub lim amutub yemukaay jamono bu ne maa ngi lay yaatal mu ni ko laasilta dayfan kariman zairan abadan yàlla boo dañ di gu tedd di nu siyaare si abadan مكرما بخير الطاعات والسدد جمن بنيت نفصل يين ترل تي برلي توب يالا برلي اي اجب محظما منكو يالا بو داني دي كوني ماغال عند رب لا شريك له يالا بو داني دي دون كوني ماغال فا يالا نيغا خامني ا آه، كين نوبوكو لك موم دارا سي اك غورم وعند اهل التقى دو دانيت diko ñu màggal fa ñooñ ragal yalla ña wala ilmi ak eh, borom xam-xam yi war rashadi ak eh, ñi nekk ci ak njub ne ko wer nga wo xamni yalla maggal na la waye yet ñi amuk ragal yalla ñëpp màggal nañu la ñi am xam-xam ba xam dara ci sey ngëneel it nañu la ñi am ak njub yet màggal nañu la kon lolu mi ngi ko wax ci njëlbeenu xasida goo xam ni euh, daf ko def di ko gàttandoo weer koor waaye ba mu demee ba weer wa di jeexit mu def ak xasida goo xam ne daf ko gunge tàmbale ko ci yaadal bushaaraati yow weer wii di borom mbégte yi bil aayaati wa suwari lishat bi kaw niya abdal muhsin suwari mu ne ko yow mii di weer wii di borom mbégte ni weer wi nu andil ay aaya andil nu saari alquran na nga ma seereel ni jaamu yàlla laa mi nga xam ni mooy rafetal bindub nit ñi kon moom kenn du sikk ci jafandugum jafandu woon moom cheikhul xadim ci makaarimul axlaq jikko yu rafet yi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni dañu ma yónni ngir ma mottali ko innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ni karamul mar'i diinuhu lii teraanga yi nit mooy diineem wa muru'atuhu xaqluhu lii mbañum rus ci nit mooy xelam mu rafet xel mu rafet mooy indil nit ki mbañum rus wa xasabuhu xuluquhu askan nit ñi dañu ko daan xantewoo kenn ku ne di xante ci askan sàngam laa bokk di ko ndamoo waaye li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni mooy askanu nit ki euh, di siddiq gu rafet gu mu bokk gu kenn mënta gàkkale mooy jikkoy boppam kon jikkoo mooy li ëpp solo sa Tuubaa nag bi mu ñëwee jàngal nañu ni moom sukkandikuwul ci askan sukkandikuwul ci genn pàggute fu àdduna waaye la mu jafandu sukkandiku ci mooy diine loolu yi war nañu ko jàng ci moom ci njëlbeenu weeru koor wi mu doon njàng moo xam ni dañ koy nafar wéy ak moom mu ànd ak suñu dund moom diine dafay baat boo xam ni mboolem yiw yi la làmb day benn baat boo xam ne boo ko waxee mboolem lu baax dugg na ca biir buñ nee nit ki am na diine loolu doy na aw tagg ndax li muy tekki moom diine mooy benn baat la boo xam ni mboolem yi baax yépp làmb na leen ci biir dañu daan wax ni amul benn jikko bu tedd wala jenn jëf ju rafet te du sunu boroom ci diine la ko jaarale andil ko nit ñi kon lépp luñ gis muy li luy niru jikko ju rafet ca ña ña amul diine jikko boobu lu ñu sàcce woon ci diine la te waa diine ñoo war a jël jikko jooju jëfandikoo ko bu fekkee xool nañ ko ngi jikko bu rafet benn bis benn bis ñu ngi def euh, benn benn waxtaan bu ñu doon def ci mondu islam xool ci wàllu jikko yi soppiku ci mondu islamique bépp ma ma di ci nettali ni maa ngi dem benn bis Europe maa ngi dem Espagne euh, yàlla dogal ma dugg ci benn biro di laajte waaye xale bi ma fa fekk nga xam ne xaj na ay atam wër sa fukki at ak juróom mbaa foofu lay toll waaye yar ba mu jóg won ma ko nga xam ne dafa bàyyi mboolem lu mu doon liggéey jóg ñëw laaj ma ni ma loo bëgg ma wax ko ko mu ànd ak man ba won ma fa ma doon laaj yar boobu daf maa yéem ci ñoom loolu may wax ni dafa mel ni ni ma leen gise ci ab yar dañoo jëkkanteeg ñoom diine ji ñun di ko jàng ci suñuy làmmiñ ñu jëkkanteeg ñun ci jikko ya di ko jëfe te waxuñ ko ci suñu làmmiñ loolu nag jullit yi war nañ ko bàyyi xel bu baax waa jéem a delluwaat ca diine ak jikko yañ ca soxla woon te xam ni bépp jikko bu rafet bu ñu gis ci àdduna bi rek jikko boobu diine moo ko fi andi moo xam nag nitu diine ki yor na ko ñu xam ni nekk na fa mu war a nekk wala keneen ku dul nitu diine yor ko ñu xam ni kon daf ko sàcce ci nitu diine yi te buñ ci diine war dañoo góorgóorlu ba loolee muy jikko rafet ñu sàcce ci ñoom ñu war ñu jël ko delloosi ko euh, teg ko palaasam. amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn benn jullu pour Sëñ Tuubaa